Ramadan Mubarak Ramadan from Gambian Province Ramadan Mubarak Ramadan from Gambian Province Ramadan Mubarak Ramadan from Gambian Ramadan Ramadan from Gambian Ramadan tuda man Musa la tuda Musa or nga or kay ayo bo stare or bo kañ la man ma commencé or 1975 lolou ak tay ñaar at la dafa bari de ah waaw bari na si loolaa la mën a calculer sax waaye lu jiitu loolu waaye bu ma commencé xool weeru koor ba mu dee mi ngi start 1975. yow depuis boo starté weeru koor ak right now at bi yow na ko ko gisee. kan at bi waaw ah weeru moom xiwal la rek ma ne wax dëgg ne la suma boor fu mu nekk ni weeru koor jàmm parce que wax dëgg ne la dara li ma war njaboot gi ñoo indi yëpp suma doomi mag yi suma doomi jigéen ñoom daal lépp lu nga xam ne lii nii maa ngi ko dundee suma kër dañ ko jënd di ko tegal ma wax dëgg du sukar du maalo du diwlin du soble du pompeteer lépp njaboot gi ko indi suma benn butu lu ma fraatu fii sax si suma poos la ak suma yu sew kon nag mun naa wax ne alhamdulilah tay mu nga xam ne bii damaa ordre xusulal suma bopp dafa uutee tey bon alhamdulilah rek laa mun a wax. comme que yalla may na ma njobot suma doome rak yow ya, suma doome mag yow ya, suma doome bop yi ñep kenn ku nekk rek bu wër ko ba taxawé rek amna lu war lo indi ci kër gi dem na ba xalé yu ndaw yi sax suma laas doomi sax seen mag yi ñu leena fiyal everything kon nak alhamdullilah rabbil alamin sant bu baax sant na yàlla bu baaxa baax li ñaan fekke ko at yu bëree ah di leen gërëm it si seen parce que ni yop si dimbalak réew mi la bu jëkk xamuñ ko ñu tok ba tv di dox di rawul di dem ci bir askan bi di jankante ñun sin jafé jafé ni ñi leen wax sen jafé jafé ak sen demb sant yalla ba mbari yalla leen yalla defal jamm ci barka salatu fatiha barka alquran karim ne fekke ko adi bare bare bare jere gene hibbi bi yàlla ko yàlla yokk ci barke rasulullah barke weeru koor bu màgg bi ci barke alquran karim kontaan naa bu baax bu ko gis naa ne Gambie daal démb ak Gambie te uute na bu ko avancement mu fi waaye nag marchandise bi seer na le maanoo daa ko leer tuloo daa ko leer jaboo daa ko leer pompitéeroo daa ko leer fem man soniya waaye alam alhamdulilah comme que ngi ser sa ñi ngi am yalla mu ngay def seen poos ñu ko jëndal sant yalla la wa wa nak anu na mu def rek dal wax deug ne yàlla bi ko wañu ne timan di wax deug ne yàlla dana ba parce que ñëpp amoon xagna man luma am amna na ku nga xamne ki amul ko sa bari na fi kon nak ñen setan bir bi dal ñu gën ko yombal fi yoro koor ba xamne wër weer yërmande la ñu yombal yépp wax deug neex la bu ko defé ñëpp man see gis seen bop du ko tay ki amna tey man am naa ku ma dimbale waaye am na ku nga xam ne kii ne amul ku ko dimbale te tey boo bëggee jënd saako maalo thousand one hundred seventy five dollars am na ku ko am am na ku ko amul am na ku nga xam ne kii tey poti maalo sax pour natt ko sax problème la kon nag wax dëgg ne yàlla daal ñi ngay ñaan daal ñoo xamee affaire ñu jënd mee njaami daal ñu seetaan mbir yi daal ñu yombal ko de parce que Gambia bi wax dëgg ne yàlla de su dee hundred percent seventy five percent yëpp xamuñ dara waaw jërë ngeen jëf. waaw wax bi neex na trop wante balaa ñuy dem dama bëgg a laajte tamit da gis si wéeru koor bi xale yu jigéen ñi dañuy sol lu wante su dul wéeru koor bi xam dañu lu ñuy gis bi dafay fees tëb su ma maas yi dem si jàkka wante wéeru koor bi su rombee ah mooy loolu yooloo am pour wax si bu umee wéeru koor ba léegi fii kenn jaarul fii ak lu waa bu wéeru koor bi bi na tey la julli gi waxuma la de taatu neen parce que yenn yi du solo yenn yi taatu neen la góor ñi xale góor yi lu ma gis léegi gisul ak kale nga yegg di tubéy ba da xacc loolu yëfu piscine la bàyyi sa tubéy muy wàcc xam nga piscine di la jox belto parce que ñi nga benn pour nga xam sa bopp rey ko rey sa bopp ñu bëri nag xamuñ ko ba ni ko bàyyi seen tubéy muy root góor ñi te loolu yëfu piscine la sax xamuñ si ban live ñu ko def live sax xamuñ ban live la jigéen ñi moom xale la jigéen ñi moom. macha allah parce que yéen ñii moom taatu leen la solo nga xam ne sa awra yëpp a ngi feeñ loolu yàlla ngi si la musal xool ko sax musiba la parce que boo jàppee sax xool leen sax sa jàpp tooñ ña billaay wala talaay parce que musiba la taatu leen la njaboot gi moom war nañ leen a yaraat dëgg la xale yi nag sikk naa leen sikkuma leen way juri laa gën a sikk suma ñeent doom a ngay sëy am na ñu fi des ñu ngay jàng suma kër kenn mas na sol pantalon kenn mas sol si pug gàtt si suma bakkan bi laa fa def sa ba léegi moo am sa mën naa am naa kale xam na suma kër xam na suma njaboot am naa ñaar ñuy sëy baa ngi kenn ki ticca la ñi ko wax jay na ba jeñ jabari Nasir bi tey kenn Moustapha bi tey Alintin ba bésee laa tey ji la xamul pantalon xamulu gàtt sol lu xiw rek sa si ngun ko miin sa kër ga la ñun seen kër loolu la de kon nag mu naa wax na xale yaa nga sol lu bon waaye nag sikk naa way jur parce que solo si kër gi génn wala mu dem ba time bu ko neex mu ñëw konkongal la nga ubbil ko mu di ko tàggu toog ba boole ete ko la mu tàggu la yaa maa ngi génn nga ne ko demal doom yàlla sa yoon neex yow yaa dem foloo ji <laughs> ah lu mu def yow yaa ko may sa loolu leen laa wax yàlla sa la mu dikk door la tuwande dal sa tuwande dal sa nga ne ko jërëjëf yàlla la yàlla dimbale waa laa ci wala tuwande di fu nga ko jëlee de sa xaw naa dee si guddi gi jërëjëf jëf jërëjëf Ramadan Ramadan from Ramadan Ramadan from